Matar Seck saa dagg waa Aliya ana ngeen ñooñu laa fi léegi nag li nga xamante ne mooy importance bi mooy honorable député moo ñu fi indi ku nekk xam na kan mooy Abdoulaye Seck Seck saa dagg li muy liggéey ci réew mi au niveau de Touba ci wàllu ndox mi wàllu solaire yi ci wàllu. di nuyu góor ñi di jël nuyoo di ko teg ci loxo Xaadim sila la mu tasaareel ma ko ci mbooloo mi. man dañuy sant ñun jigéen ñi dañuy sant dañuy sant président Macky Sall dañuy sant honorable député Lat Seck mi nu booleek Macky Sall ban xam kan mooy Macky Sall ki nu booleeg Macky Sall tàccul leen ma honorable député tàccul leen ma ko bu baax a baax a baax yéen jigéen ñi ndax ñun jigéen ñi ñoo moom maanaam ñun jigéen ñi ñoo moom nguuru Macky Sall gi Abdou saa dagg Sadaga lekku ci naanu ci mi ngi daw ci sunu yitte guddeeg bëccëg suba ngoon honorable député nag ñi koy ñaanal ñu ngi di nuyu di bu baax a baax te di leen dalal ci turu ndaw yi nga xam ni ñooy ànd ak Abdoulaye Seck Sadaga yëpp ci njiit li muy Xaarim Silla mi nga xam ne mooy sunu coordinateur ñu di leen nuyu ci turam te di leen siyaare te di leen wax ni kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax baax ndax li ñu doon jël ay oto di dugg ci koñ yi di seeti nit ñi tey rëcc wuñu ko ndax bi ñu wootee nit ñi ñëw nañ wuy siñu kon ñi ngi leen di sant bu baax waaye nag da ngeen a wuy si ku jara wuy si muy honorable député Abdoulaye Seck ab député li nu xamoon ci moom bu njëkk mooy dem assemblée di plaider nit ñi seeni jafe-jafe waaye xamuñu woon ab député boo xam ni day jël courant di ko joxe di jël am ndox di ko joxe di dagg ci salaire am di dimbali néew gi doole yi ma bàkk tey man xaadim kii may muy abdulaat sa dagg kay lay bëgg a way fi ay jukkoom bismilaay ma bàkk tey man xaadim kii may bëgg a way muy abdulaat sa dagg kay lay bëgg a way fi ay jukkoom ba muy lu ndaw lañ ko joxoon seex saaliw la nekkaloon ca daara jay tarbiya woon mu nekk fay sàkki ngërëm moom ak mbay sekk la woon ak xaadim ña nga fa woon bay saal ba mii ña nga fa woon ca daara jey ngërëm sa daggadee xam na ni tey lan wuti woon am na ko tey Seex Saaliw moo leen ko may ku weddi lii yëral mbiram xanaa xamoo sa kay Seex Saaliw mas na ko may aw naaru góor wu weex wu rëy la joxoon mu yóbbu këram gis naa ne tey Seex Jang wane ngeen ak jàmbar gis naa ne tey Ramotulai gay wane ngeen ak jambar gis naa ne tey Ndiora gay wane ngeen ak jambar gis naa ne Bintu job wane ngeen ak jambar waye gis naa tay bu Bousso wane ngeen ak jambar Bada jeng jere ngeen jeuf tay fi fallu sar tay yefi lerna man dama wax ne president Macky Sall neena bu wotee ba pare day dem noppalu ji tëdd déglu résultat yi man sama xol sedd na man mii loolu laay def maa ngi leen di féliciter di leen wax ne ñun tey li tax ñu dajale fii nit ñi dañu ne nañu programme ñi nga xam ne ñoo war a voter ci foofu te dëkk fii ñu dajale leen xam ngeen ne loolu jëf ju réy noonu Baye Diop def na ko démb fële ca Gédé. tàccu leen waay. mais tey li leer mooy xam ngeen ne président de la république li mu def Touba dafa rëy moo tax ñun ñu war koo delloo njukkal ndax xam ngeen ne man démb barki démb dama nekk ci ay programme ba vingt et ma jóge fi dem Dakar réunion dellusiwaat ci guddi gi xam ngeen ne loolu bu fekkoon ne yoon wee moo fi nekkoon. munuma fa munuma ko te xam ngeen ne sama wér gi yaram mayu ma ko mais nag autoroute Ila Touba bi mais ceeb bi nga xam ne daf koo wàññi te musta yokk boobaak léegi diwlin gi mu wàññi te musta yokk suukar si mu wàññi te musta yokk gaz bi mu wàññi te musta yokk boo ko booleeg bourse sociale bi ak yi nga xam ne mooy tax jigéen ñi ku ci ëmb booy am doom doo fay kon nag wax ji mënut a bari sama xol sedd na mais nag maa ngi leen di xamal ne maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw waa koñ bi fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yaroo ngeen taxaw taxawaay bu sell muy Ami Touré jaal njom ñoom ñoom madame Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bàyyiwuma kenn ñu baal ma ci lim bi Fat Diop merci kon nag koñ bii sama koñ la sama chef la man maa ko moom te lii mooy wane ne man maa ko moom keneen moomu ko loolu dama ci profito dama ci dama ci profito dama ci profito di ci sant sama rakk muy Amsatou Camara lii mu def tey lu rëy la bàyyi ñëw jàpp ñu na ngeen xam ne ñu ngi koy sant di ko gërëm nag suñu gañee dañoo bëgg nag Xaadim Sylla mii nag président de la defal ñu ko ministre maa ngi sant presse bi ci seen taxawaay maa ngi sant sécurité yi maa ngi sant safoor yi maa ngi sant sëñ Modou kiimaan Diop di sant sëñ Jili Bousso gis naa leen maa ngi leen di sant di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñi démissionné yeneen parti ñëw jàppale di sant it ñi nga xamné ñoy groupe théâtre yi di sante mohammed Ka Allié di sante samay xarit samay wa mbolo sante santé ñooñu maa ñom ben lañ di sante wa Mbal di sant wa Soura di sante wa Allié di sante wa Gédé Kaw di sante wa Gédé di sante wa Tindodi di sante ñep di gërëm ñep jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf assalamu alaykum